mooy dañuy nekk ci ay mébét rek saa su nekk ñuy tërali projet di xalaat yoo xamante ne ci affaire àdduna yooyu rek moo leen di yitteloo ba tax duñu mën a nekk ci yoon bu baax la wala amurannahum dama leen di digal fa la yu battikun na azaanal an'am gis naa dañu ne njoof ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy jur gi njoof mooy dagg nopp mooy ni gaay bi def wala amurannahum fala yughayyirunna xalqa allah dinaa wallaahi danaañ leen digal dinañu soppi mbindum yàlla yàlla bind leen ñu ñuul ñu ne dañoo bëgg a xees yàlla yow xamuloo ni ñuy def comme mënuloo bàyyil man ma wala man mi man yàlla may leen karaw ñu ne déedéet bii doyul karaw bi baax mooy karaw bi tubaab yi yor yàlla nag comme yow manoo bàyyil man ma wala man mi man waaw ak chirurgie esthétique yeeg yooyu ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tourné loolu yàlla nee na seytaane nee danaa fexe ba gaa yi di ko def ah mais malgré seytaane li muy def loolu yëpp pour sànq nit ñi di leen yóbbu biir safara ngir di ko jaaree ci yooyu yëpp seytaane سان بروم نينا انك يد الشيطان كان ضعيفا والله فخم شيطان دا دا نوي دي باسكو شيطان بو لاقاتو تي غيناو يالا شيطان دولا مانال دار لول موتاخ مون ان عباد ليس لك عليهم سلطان سما جامي ñom do len manal doo am ci ñoom benn ah. kilifteef ci kaw loolu kon pexe seytaane dafa doy parce que ki am pexe bu rëy mooy ki nga xamante ne moom yaag moom rek a moom bu la bëggee écraser léegi amul kenn kuy taxaw seen diggante mais koo xam ne boo làqatoo ci ginnaaw yàlla léegi mucc ci moom mais nag làqatu ci ginnaaw yàlla di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ak yu mel noonu ci sa làmmiñ fekk sa jëf mooy a'udhu bi sheytaani min allahi maanaam sa jëf mooy maa ngi làqati ci ginnaaw yi seytaane pour mucc ci yàlla parce que di ko wax ak sa làmmiñ ak du benn wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ci sa làmmiñ fekk sa jëf yëpp mooy li yàlla bëgg bëgguma ko li seytaane bëgg looloo ma neex ci ginnaawam nag laay làqatu di pour mucc ci ci yàlla ak i mbiram loolu nax sa bopp la mais kon ci biir loolu kon pexe seytaane dafa doyadi ba pare seytaane pexe yi muy mën yëpp li li koy gën a wane ne dafa doyadi mooy seytaane manalul nit dara feek nit ki may ko buntu seytaane mënul dugg nit fu ko ubbeelul buntu kuy nekk di def li li mu war a def seytaane du ko mënal dara seytaane du ko mën a dugg seytaane du ko mën a gaañ shaytan du ko meuna yakam hmm. a yàqal à moins que mu nek nat comme li dalon yent yalla ayuba ala nabina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam te loolu du dal dinim ci yaramam rek lay dal mais du dal ruham du yegsi ci dinim ci yaram bi lay meuna dal ci ak am amam jeex na kon eh, dafa feebaroon feebar bu métti la feebaroon ba pare ñakoon jabotam motax tax alquran ne naka wadrib dani ko urkut bi rijlika fadrib bi urkut bi bi rijlika hada muxtasalun baridun wa sharab wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab wa wahabna lahu ahlahu mithlahu ma'ahu rahmatan minna wa dhikra li ulil albab al mu ne ah, ah. bi ñu koy faj moom seytaane daf ni mas ni masani bi nusbin wa azab aywa mm. man seytaane laal na ma mettital na ma te am na ak mbugal bu moo teg mu ne yow sama borom kon am na ci beneen ya eh, rabbi inni masaniya durra wa anta arhamar rahimin loolu la ñaane yàlla man de lor dal na ma te yaay ki nga xam ne yaa dàq yërëm ci ñuy yërëmaate sama borom nee na ma musal ko nee na ma ni ko urkud bi dóoral sa tànk bi nga dóor ko ci suuf si mu am lu ballee foofu mu ne hada muxtasilun sharibun wa barat no astaghfirullah muxtasilun baridun wa sharab maanaam li nga mën a ndox moomu noonu jël ko nga sangu ci nga naan ci maanaam muy saafara bu bu bu génnee foofu mu ne ko nang ci sangu nang ci naan d'ailleurs moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi bokk na fi ñu teg teg teloo pour njariñal saafara bu fekkente ne nit ku baax moo dëgg tànkam fenn dóor ko mu génne ndox ndox moomu nekk loo xam ne bu mu ko naanee bi mu ci sangoo naan ci ci la ko yàlla defaral ak wér ak saafara lan ngay xalaat ci kàddu yàlla ci jëmmi boppam alxuraan kàddu yàlla moom ci jëmmi boppam loolu la ñuy wax qiyaasul awlaa ci usulul fiqh qiyaasul awla mooy loolu mooy à fortiori ah, analogie boo xam ne ah. waaw <laughs> ci à fortiori la tamit moo tax mu ne ko nag léegi comme dañu si ne ko a ah, man de bu dóor téeméeri yar parce que soxnaam yëpp dañ ko bàyyi woon njabootam yi lakk ñëw lakk lakk seen kër yeeg seen lépp ñoom ñëpp ñu génn àdduna noonu mais yooyu seytaane moo ko mayoon maanam yàlla moo dani woon seytaane bu dee mënal nga ko dara defal loola neex mais loolu rek la ma mënul woon attaquer lan diineem mënul woon attaquer spiritualité li mu ko mënoon a yàqal yépp ci affaire àdduna la alquran ne ko nak léegi kon comme waton ko ko léegi jeulal temeri kii yar nga bolé len nga dor ko ben dor fadr bi wala tax nas kon bul bul bul bul ki sa sa sa sa sa sa ngiñ sa ngiñ ni bul ko bul ko bul ko tax nis bul ko ah non non non dedet bul ko ñak respecté voilà yalla ne wo xamna lahu ahlahu ñu wat ko njabotam wa mithluhu ma'ahu ñu mayaat ko leneen lu bokk lu ànd ak lañ ko jotoon a may sax fa rahmatan min indina loolu yëpp muy yërmande bu tukkee ci noonu wa zikra li ulil albab ba pare nag loolu mu mën a nekk loo xam ne day rappeler day fàttale ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xel yu ñaw yi maanaam kon loolu pour wàllu ne la seytaane kon pexem réyul bu dee moom mënul yàqal kenn ci wàllu allaaxira ci wàllu ah ah digganteem ak boromam li mu mën a yàq lépp ci wàllu adduna la mooy te loolu boo laqatoo ci ginnaaw yàlla mu musul la ci kon bu ñu waxee ne pexem réew par rapport ak kan la par rapport ak yàlla sëñ bi wax na ko sànq xaj bi nga xamante ne boo ñëwee xaj bu bu bu bu mën a songaate bu bu fi nekkee nga dugg ci biir kër gi da nga naan borom xaj bi yeewu ko ma dugg voilà. bu bind ci attention chien méchant yow da ngay téléphoné d'abord wala nga sonné après buy waxee nga ne ah waaw teyel sa xaj bi ba pare tey ko yeew ko ba nga xam ne fii yeew nañ ko nga dugg dugg dem <laughs> mu laa ne bu xëccoon day yuuxu rek day baw rek ba pare am na beneen affaire bu am mooy seytaane manul fekk jotaay bu ñuy sikkare am na ñu ñu tuddee ci ñoom masnuus comme ni ñu waxee majnun ci ñun mooy koo xamante ne nit ñi dañ doon sikkar benn seytaane boo xam ne nit ñi dañ doon sikkar mu dem ba jege ko boo boobaa nit nit di gisee jinne di di di jommi di après mu mel ni ku dof ñoom tamit noonu la ñu mel buñ toogee jotaay bu ñuy sikkar ñu waa ji di dof dof lu ba jege noonu loolu moo koy dal moom day dof ñu naan ci nit ñee ko sadd comme ni ñuy waxee ci biir kii jinnee ko sadd <laughs> loolu maanaam parce que tudd yàlla da koy da koy dàq day dàq seytaane niki noonu par contre nag tur tudd yàlla da koy dàq moo tax yeneen bi sallallahu ne ida ida ida sawaba al muazzin mu ne adbara seytaanu walahu duraatu mu ne bu ñu nit ñi day daw lu war a tolloog comme par exemple buñ taxawé ni di nodd fi ni lu wara tolo 400 km parce que fi yenen tibi wax sallallahu alayhi wasallam ni ngi ko doon wax ak Medina day wara tolo à peu près 400 km buñu ñu allahu akbar allahu akbar rek day daw té buy daw da ci and ak ay ngelawol yu fort ndax day tit <laughs> day kon pour wax le shaytané moo tax bu mais rek xoolal subhaanallaa lu mu wax dani waaye bu ñuy bu nodd bi daanu rek muy daw si waat dellu si waat maanaam du perte benn seconde tellement ni mu xëree ci yàqal nit du perte benn seconde bu nodd bi arrêté muy def effort yu mu man pour yegg si waat commencé di di trouble bu gars yi dee li xam rek mu dawati defaat la même chose xoolal pourtant mënoon na ni ah diggante nodd ak li xam lu ma fi ragalloo waat du ma fi tiidloo waat di ma fi mun naa koo éviter xaar mais déedéet danaa même instant bu ndaw boobu bu ma ko xeeb pour yàqal nit mais moom di nga dem ba dugg ci jàkka mu dugg ci jàkka. waaw dégg ko lim la wax. waaw <laughs> oh, loolu la la wax. <laughs> dani bu ñu noddee ci lay daw. ba pare soy julli mune mune mu bu ñu li xame day dawaat dawam bobu non bu li xam bi pare rek mu delu ci wat nak mune nit ki di julli mu nan ko fàttaliku nga bi nga deme ci marché ba fàttaliku nga ya diw bi ngeen di waxtan fàttaliku nga nangam nangam mune hatta la yadri rajula kam salla ba sax nit ki dootul xamati ñaata la julli voilà ak yëpp waaw lu ne rek mu fàttali la ko waaw comme ni man soor doon nettali waa ji euh, euh, nga xamne dañ ko wax euh euh, euh dafa ñew ci ci ci julli gi mom nag ñuy julli ge comme ñenti rakka la ñu dem ba ci ah ñentel bi imam bi na a jóg rek waa ji daal di non <laughs> ci ñett ñetteelu rakka bi waa ji toog léegi mu ne subhaanallah maanaam comme ñetteel bi dafa naroon toog koy matul mu ne subhaanallah rek imam bi daal di jóg imam bi mu jógee rek daal di wax kan moo waxoon subhaanallah maanaam kan moo ma kan waa ji ne ko man la mu ne ma ñëpp fàttaliku woo leen sax demoo leen bàyyi woo leen sax xel sa julli gi ba ngeen rate julli gi ba ba ba ma naroon toog nii te doo leen ma ko fàttali kii rek moo ko yëgoon mune ko mu ko yow du jambar nga di yow no def ba yëg ko mu ne man da ngay xamne man ñeenti boutique la wax <laughs> te sa bi moy julli rakka bu nek damay def inventaire benn boutique dama ci jaar bi ma biñu demé fa ca ñettel ba nak mo xamne benn bi matul won benn be def mo xamne def na kon benn rakka mune subhanallah hmm? <laughs> xam nga kooku ah waaw mais seytaane seytaane noonu lay def seytaane noonu lay def mais nag am na ñoo xamante ne loolu mënalu leen ko mooy moo tax loolu il faut nga xeex ak moom loolu tax loolu la ñuy wax salaatul mujaahidina julli ñuy jihaad mooy loolu mooy julli goo xamante ne nit ki daf koy julli seytaane ñëw na fexe na ba faatiha bi teewlu ko mu ne beneen saar bi danaa ko teewlu xeex ak seytaane ci loolu bu demee par exemple tare bi seytaane nax na ko ba ci taxawaay bi yëpp seytaane fat yóbbu na xelam ci leneen mu roko mu a déedéet roko bi fay day may koy gañe dinaa ko teewlu et cetera maanaam bu ko seytaane gañee ci yenn yi mu gañe ko ci yeneen yi bu gañee mu gañe ko ci yeneen yi bu gañee bu ko et cetera kooku nag mën naa dem ba nga xamante ne léegi julli bi yëpp mooy domaine seytaane waaw mais aarifu billahi ko xamne dafa xam yàlla deug deug deug yàlla tak tak takal xolam ci leer koku day dem ba nga xamantene mom fu mu ne rek mom bu nekké ci benn jotay seytaane du fa tew day sori lo tax yeneen ci bi waxon sallallahu sayyidina Umar radiyallahu anhu na ma salaka Umar waadiyan illa wa fajjan illa salaka shaytaanu fajjan akhar seytaan Omar ibn Khattab bi radiyallahu du sóobu benn yoon lu dul seytaane day jaar ca beneen yoon da koy sori lu leer bi gën a tàkk nag rayon bi di gën a rëy moo tax Seydina Omar radiyallahu moom daf cee yeggoon foo xamante ne 40 jours fu mu romb seytaane du ko jaar waaw moo tax mu ne inna seytaane la yaxaafu minka ya ibn al-Khattab seytaane dalaa ragal yow Ibnul Xattaab la ko yéen ci waxoon sallallahu alayhi wa sallam donc ala xaal bi pour revenir kon seytaane moom ay pexem taxu koo rëy bu rëy rek dafa fekk ni nit ki moo ko may bunt bu mu jaar ci moom ba pare tamit kooku moo tax taxqiqul maanaam moom moo incarné wul gi muy muslu ci yàlla pour seytaane rëcc pour rëcc ci seytaane léegi mu des kan jigéen ji xadis bi nga mujjee wax ne li mu gën a ragal fitna bi mu gën a ragal ci xeetam bi mooy ci góoru xeetam yi mooy jigéenu xeetam yi parce que li tax mu ne parce que banu Israël ñoom bi leen seytaane bëggee faagaagal ci jigéen la ko jaaral te loolu xew na léegi problème yi ngay dégg yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp boo ko xoolee ci jigéen ñi lañ koy jaarale <laughs> wala xaalis waaw xaalis xaalis xaalis ci jëmmi boppam xam nga xaalis ci jëmmi boppam du du moom la nit ñi maanaam xaalis bi utilité bi après la maanaam li muy jariñ moom la nit mais soo xoolaatee lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp dañ koy jaarale waat ci jigéen mm-hmm. ñoom la ñuy fexe moo tax yéeféer yi xam nañ lool de biñ xamee ni yow di surtout yow di kenn xam parce que motax ñuy ba campagne bu metti bi contre foulard, bi ngeen defé tax foulard kay xam nga man man lan kan déranger est ce que dama toncien waxuma lu lu mais lutax leen di metti ba tax ñuy def campagne bu bu di lan lan rek lan lan tey bu fekkente ne jigéen laa ma ñëw sol mini di ko di ko liggéey si dañ ma fii gën a saxal di ma yokkal ay promotion mais su ma muuroo dañ may boo moytu dañ may dàq lu tax lan moo tax lan moo tax c'est parce que li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam mooy loolu waaw loolu mooy problème bi problème bi yëpp benn la mooy loolu mooy lan mooy fitna gi nga xamante ne moom la jigéen ñi mën a fitnaal góor ñi nga xam ne ñoo yor dëgg-dëgg pouvoir bi ci biir parce que xam nga euh, bi may doog a ñëw fii nii ci dëkk bi dafa am benn affaire bu ma mooy fu ma dem ci bureau yi damay gis souvent jigéen ñi lay fekk ci kanam manam bu jigéen ñi lay fekk ñooy ñooy nekk ci maanaam poste yu baree bari bureau yu bari bu ma fa demee jigéen ñi rek laa fay fekk ah voilà accueil yeeg yooyu lu ci ëpp jigéen ñi laa fay fekk ba ma ne mais ma am ku ma doon waxtaanal ni ko mais France daal góor ñi amuñu njariñ quoi mais foo dem jigéen ñi nga fay fekk mu ne ma déet dafa ndànk de poste de responsabilité yi ca biir moom góor ñaa fa nekk ah. ci biti la ji maanaam dañuy jigéen ñi lañuy jël teg leen ci kanam.

manam man ni ma solo ni mo geuna correct ñom ni ñuy solo man ni ma solo man mo geuna correct ñom ni ñu solo lo xamne man sax dama ko rusa sol man en tant que goor ñom ñu diko en tant que xolal alquran fi mi waxe bimu nan naan qul lil mu'minina yakhuddu min absarihim wa yahfazu furujahum aya yoy non bimu wax affaire mouray di wax jigen ni bët góor yi nañuy bañ di xool ah di def xale bu jigéen bu leen romb ñu xool ko nañuy eh, sadd seen xef yi wax tamit góor jigéen ñi tam nañ def noonu ba pare mu ne nañu sol col gu jot aaya yooyu noonu xam nga nan la ko jeexal wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuub la'allakum tuflihun eh waaye tuub leen yéen ñëpp jëm ci yàlla yéen ñi nga xam ne gëm ngeen boo leen koy def di texe lolu ban rapport la am ak muru len muru len ba sen cër yi daj bu len muré ko dul ci kanamu diw ak diw ak diw ak diw moy sa jeuker sa papa sa dom et cetera ban rapport la am ak tout len yeen ñepp dem ci yalla yeen ñi nga xamne ne gëm ngeen bo len ko defé da ngeen tax moy tout gi fofu lay tambalé nit ñi duñu mëna jup tout dem ci yalla tout gu sel ma daama jigen ñangi ngi fi di len fitnal ma maadaama jigéen ñaa ngi fi di leen fitnaal tuub gu sell gu wér duñ ko mën a def ah non non am ay envie yu ndaw mais yu yu yu bref yu éphémère ay envie yu éphémère dañuy jékki-jékki prendre conscience war nañ tuub war nañ ci yàlla mais problème bi mooy envie boobu noonu tey comme tey fii nii bu fi toogee sikkar ak yooyu noonu ba gaa seen xol yëpp dellu ci yàlla ah waaye ci bu ñuy génn mbedd mi <laughs> affaire bi naaw. ah loolu la kon foofu la tàmbale loolu nag moo tax problème la bu rëy xam Euh, dañoo nekk ci époque boo xamante ne xam nga lan moo yéeme lan moo yéeme mooy dafa am loo xamante ne dañ koy xaar ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy kilifa diine yi ñoom ñoo taxaw ci loolu ñu ne eh gars ay la yéwén situation bi critique na lii jigéen ñi di sol dara baaxu ci et cetera ah il faut ñu sotti ko démb femme bi ma leen doon wax. femme boobu benn femme la bu ma ko doon waxtaan ak moom mu ne ma moom même am sax waa famille yëpp dañ ko ciy sonal te loolu xam nga bari na ñun man suñu kër sama rakk yi ñoo njëkk a nekk famille boo xam ne dañuy muur completement ñoom biir biir biir dëkk Kébémer mais yéen ñi ko doon def mais da da dafa bizarre man bi ma nekkee xale am ay douze treize ans yooyu bu ma daan romb mbedd Kébémer léeg-léeg day xale yu ndaw dañuy daw di dàqante eh kaay leen gis ngeen kii du nuyu jigéen <laughs> ah <laughs> ah léeg-léeg nga ma ma romb fenn dégg nga am am nga gis ci parenthèse gars yi di yër naan xoolal kii ak kurusam gi kurus gi. xam nga loolu maanaam euh, yooyu li koy indi mooy culture bi maanaam c'est parce que dañ cee maanaam ñi nga xam ne ñoom buñ ko waxoon nit ñi ne ah tiens ndekete lii moo waat lii mooy jaadu ci diine ñooñu problème bi mooy duñ leen dégg ñuy wax ci sujet lu ko waral lan motax duñu duñ leen ñu wax sujet yooyu te yoy moy premier premier rôle premier rôle bu sëriñ di jariñ moy lool moy xol moy au minimum moy yi nekk ci société bi nga souligner premier lool moy le minimum c'est le minimum jaxaso yi goor yi ak jigéen yi di jaxaso mais lool c'était inimaginable jamono sëriñ yu mag yi hein. jamono sëriñu mag yi c'était inimaginable gis nga kër seen choix yi boo fa demee ñoom ba léegi nii boo duggee ci kër gi mën nga faa nekk ñetti at di fa dund te doo gis fu jigéen ñi dëkk da ngay defee kër gi amul jigéen partie jigéen itam noonu ndax niñ ko defaree jigéen ñi mu doon njëkk jàngal alxuraan moom bi mu leen di jàngal alxuraan fii la daan toog jigéen ñi nekk ci ginnaaw. doonu la toog ñu jàkkaarloo ñu di ñuy jàngal de déedéet toog nii jigéen ñi nekk ci ginnaaw fii mu jàngal leen ki ñu njëkk jàngal ba mu wax moo doon jàngal yeneen jigéen ñi ah mais léegi subhaanallah la ilaha illallah ànd nañu ah ñu nekk biñ demee Paris eh, nettali woon naa ko ci gàmm ko ba ma waxee xaw ma gaay benn waaye ne ma ah tàng na de ba ma naan ko tàngul xaaral ma wax la lu dañoo dem Paris 2000 yow yaa nga fa woon 2009 ak kii mi ngi fa Fantagay mi nga fa woon mais moom da doon nelaw comme ni muy def dégg nga ah <laughs> Pape Makhtar ne ala alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu moo ko nettali ne Cheikh Hadji Mansour ak Serigne Hadi Touré ñoo demoon ci Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu ñu dem ci moom ne ko baaj dañoo xëy fekk ci suba gi ñun dey seetlu nañu ne gis nañu la bu baax ni ngay doxale diine te xam nañu ni ku am sa ngërëm danga am ngërëmul yàlla léegi liñ bëggoon moy nga wax ñu mbir yo xamantene mom nga bëgg bu ko defé ñun ñu nekk ak mbir yi nga xamantene mom ngay bañ bu ko defé ñu bàyyi mu ne la wa dem leen biñ démé ba ca tisbar mu ne ba tisbar gi ñu déllu si tisbar gi biñ déllu ci mu ne leen ah man day jaamu yalla kessé ba awu lu may bëgg mbaama diko bañ ci diiné ji lu dul li yalla bëgg ak li mu bañ li mu bëgg laay bëgg li mu bañ laay bañ waaye daal bi ñaari mbir moom xam naa ne ñoo may naqari spécialement ñaari mbir bu njëkk bi mooy xale boo xam ne dafa toll ci ñu war ko jàngal alxuraan ñu di ko seetaan kenn jàngalu ko loolu moom bu ma ko gisee daf may metti mu ne wala boog ma toog baatu góor ca wanagu jigéen ñi maanaam eh, seen fu jigéen ñi ne ñu dégg ko bo bon wanag dañ ko daan wax manam moy néeg yi nga xamantene fa lañ daan yobu seen gan yi et cetera manam genre sal sal sal mu ne fofu nonu ma jégg manam jotay bo xamné jigen jigéen nga fa rek ma jégg dégg dégg ben goor mu ne fa ma dégg fa baatam mu ne lool mom ñu jëlon paaka jam ko ci sama xol may kaddi kaddi ba sedd dee moma ma gënal ma dégg lool léegi nañ xool ñun suñu époque mais loolu si mais c'était inimaginable yaa subhaanallah c'était mais c'était inimaginable xoolal euh, am na benn documentaire bu kii def euh, Bachir Kounta def ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu Serigne Abdou Aziz mi ngi ci nettali mu ne moom fekke na Ah, wa fàtte naa turul ndaw si mais benn daayira la woon yoo xam ne ñoom jigéen lañ dañ ko daan ziar si bi ñu ko daan ziar si moom nag comme daanul gis jigéen ñi même xoolal li sëñ Mbaye si Abdou di nettali doomu Alaaji Abdou Aziz sëñ Mbaye si Abdou Jool Fuuta mu ngi naan même Serigne Babacar moom ñoom musul mu xàmmewul seen yaay yi ñoom tellement daanul gis jigéen ñi daanu leen xool waaw mu ne am na benn bés mu fekkee ziyaar bi daayira jigéen ñi ñëw fa di ziyaar si bi ñu ñëwee toog nee na ah comme que dañ daan nekk nii mu am benn salle comme ni mu am bunt bu nekk nii bëkk néeg bi day taxaw bu ñu waxee ñu jottali leen et cetera moom mu wax ñu jottali ko après na jékki-jékki seen présidente ba daan ne waaw ñun de am nañ suñu yeneen i mbokk ñoo xamante ne seen sëriñ yi ñoom seen dañuy dañuy ñoom dañuy gisante ak seen sëriñ yi sëñ Babacar si daal di nee na sëñ Abdou nee na mu gis sëñ Babacar kanam gi changé tuuti maanaam mooy genre affaire bi touché na ko intérieurement nee na mu waw ah waaw euh, bu